Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf si fini ji luk tubaab coronavirus bàjjo bi ma ngay jaabaaytoo ci biir université journal La Tribune moo ko bind ubbil yéenekaay bi ci ESP di école supérieure polytechnique ba ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru yéenekaay bi nee nañu tëj nañu ko ci diru fukki fan ak juróom ndax dañu fa nemmeeku la ëpp fukki cas coronavirus ñaar ñoo nga ca département gestion am na ñaari cas coronavirus ca génie civil am na ñett ca campus ba benn bu jigéen ci ñoom la ñu laata dégg feebar bi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru déggoon nañu ko ci université Gaston Berger ba ca Ndar ñu dégg ci page 5 bu Vox bi liggéey ci réew mi ci 24 yi ñu génn juróom-ñaari nit faatuwaat nañu ci feebar bi juróom fukki kaa ak benn ak ñaari téeméeri kaa ak juróom-benn fukk ak juróom yu yees ci corona bi am na ci réew mi source wa nañu coronavirus boobee ma ngay wan waa daara jorof lu dara jarul faat na fukki nit ca Linguère faat na juróom-ñetti a aaru ci coronavirus bi anki dina ngi ñuy xamal ne ki ñoo ngi nas ay pexe ngir seet nan la mën a def ba ñàkk seenu askan te ba léegi amaguñu tàkk bu wér ci ñàkk yu ñuy séentu ana ban moo ci gën a efficace dina kay xamal nañu it ne kuréel gi di conférence des chefs d'état bu CEDEAO bëgg nañoo commandé lu toll ci 240 de vaccin docteur Assane Diop di pharmacien di leeral ci xët mu njëkk anki dina kay ne ñàkk bi gën ci ñun mooy ñàkk bi nga xam ne bu yegsee des na ko mën denc état d'urgence ki couvre-feu yéenekaay bi nee nañu couvre-feu gi couvre-fin la mujjee jur ci ñenn ci askan wi ne da leen a yokk ab xiif ñii nee nañu système D maanaam di déborde lu ñu lekk ngir mën a dund loole la ñuy def am ñeneen ñu xam le ci l'observateur ni bi couvre-feu gi tàmbale ak léegi miskit ak meew la ñu dëkkee poñse di ko reere Walf Quotidien nañu couvre-feu gi ñu tegaloon waa Dakar ak waa Kees juróom-ñetti fan yee ñu ca yokkoon jeex na ana lu cay topp loolee la ñëpp bëgg a xam moo waral askan wi yeewoo ci Ndakaaru ak Kees daanaka kenn noyeetul Sud Quotidien nañu loolee nag daanaka mooy problème bu rëy bi am ci réew mi tegub loi leer ci bopp ñëpp lu jafe la ci réew mi ñoo ngi koy dund ci loi bi jëm ci ñetteelu mandat Macky Sall bi ñoo ngi bi jëm Iba Bari Camara dib jàngalekat gëstukat ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru dañuy wax ci xët mu njëkk Sud Quotidien li ñuy suñuwal ab décret tax na ba état d'urgence amatu fi état de siège amatu fi couvre-feu moom waxi nopp ñu noppi ci te wax ci jëfi Samba Allaar ji ñu suur soi nañu moom la Macky Sall def ca société bii di la poste mu daggaleen bourse sociale te xaalis la ameel poste ñeen fukki milliards ak ñaar liggéeykat yi gis ne ci musiba la jëm tax ñu tëgg seen gémmiñ di woote wàllu tey ji ci suba fas nañu yéene conférence de presse ngir wax li leen metti Mohamed Cissé di doomi Amérique ba ñu faatoon ci Medina Baye waa ji ñuy tumaane moo ko faat di Babacar ñu gën koo xam ci turu Amadel L'Observateur nee nañu ginnaaw ba ñu ko tegee loxo far na faatu ca kasob Louga ba ñu ko téye woon li ko faat yéenekaay bi nee da doon jéem a évadé bëggoon a garde yi ko doon garde nekk ci leneen ca la yéegee ci miir ba bëggoon a tëb ci la ñu ko gisee ne ko wàcceel mu bañ jekk-jékk tëb ci la bopp bi jiitoo dal ci suuf mu jaara ca faatu keneen a ngi ko faatu ci anam wu gaaw te yéeme la si ne xibaar bi ba xamal ñu ne moo di avocat bii di maître Oumar Diallo ca tribunalum Dakaaru fa la faatoo dafa amunub dossier demoon plaidé ko ba mu noppee bay génn ca tribunal ba ca buntu tribunal ba fa la ko malaise dale sandarma ya fa nekk woo sapeur ñu jël ko yóbbu ko hôpital principal bu Ndakaaru foofee la faatoo moom avocat bi di maître Oumar Diallo juróom benn fukkeet ak benn l'observateur doy na waar ma nga amee ca tëngéej mu di sa nas ndaw su am jëkkër moom la yàlla natt ba aw faram ëmbal ko mu nëbbu ëmb bi ba wasin jël doom ji dem sànni ko ci armeel yi journal bi nee na ñu xaj yi taxawàllu fa la ñu fekk liir ba def ko jëf ju ñaaw